caggat moom rabam caga la caga caga fenkat caga caga boo xam ni euh, euh, slip bi euh, vraiment yaakaar naa ne daa def daa daa am ay kut Aïssata Tall Sall moom yaakaar naa ne slip bu caga la lay lay solo slip bu caga la jiital moom slip bi daa am ay kut moom moom moom caga rage caga caga ma xaju marché la xaju marché xaju mbedd ñëppay tëwu xaju marché la xaju mbedd mooy Aïssata Tall Sall moom dafa fen a fen rab yu rab yu rab yu mën a fen la yor ay rab yu soxor ay rab yu mun a duul la yor moom dafa fen a fen a fen fen moom moom moom dafa salte quoi dafa salte moom moom caga moom xaju marché la xaju marché ñëpp ay tëbu xaju marché xaju mbedd moom dafa salte salte ba nga xam ni silib bu caga la yor boo xam ne dafa am dafa ay kuttu moom boo ko futtee silib bi yëpp kuttu la caga bu international la salte xasaw moo tax gémmuñu caga la yor fen rek lay def caga fen rek lay def parce que lu muy lekk du lew ci fen rek lay def plus de 300 morts de dee ci gaal yi ñu bind ko euh, waa Espagne affiché ko ñëpp affiché ko dans le monde mu génne ne noon c'est pas vrai loolu amul existé wu kooku moom moom moom si li bu téeñ la yor kooku dafa feebar kooku dafa feebar kooku rab yi la nag ay rab rabam moo caga rabam moo caga osé cagatu osé cagatu osé mentir moo loolu mooy Aïssata Tall Sall kon kon mooy lu ma leen wax rek ku ci nekk na nga ñaan yàlla yàlla muccal la nga am doom ju mel ni Aïssata Tall Sall caga politique la caga politique xaju marché la xaju mbedd tëbu rek tëbu rek moom silib bi daa ami téeñ yàlla nañ ci yàlla muccal te musal ñu ci ku mel ni Aïssata Tall la mais nag c'est normal <laughs> caq nee naa leen xaj xaj lay mor lay àndal Macky Sall ab xaj la mu for ay xaju marché xaju mbedd Aïssata Tall Sall xaju marché la ah Félix Antoine ñàkk jom xaju mbedd la ah ñoo ko ay xaj yoo xam ne amuñu buum amuñu borom dañuy taxawal rek di wëndaalu léegi nag Macky Sall dafa ñëw moo tax ñuy cangalante seen biir dañuy cangalante mbow mbow mbow di cangalante rek ay xaj lañ ay politicien lañ chien politicien xaj kuti mbow mbow Aïssata Tall Sall xaj bu jigéen la xaju marché la xaju mbedd ay politicien lañ kuti mbow mbow lañ ay xaju yu bon lañ yu rage yu am ay kutt yu am ay kutt seen tuun yëpp kutt la moo tax ma ne la Aïssata Tall Sall silib dafa fees dal ki déñ fees dal ki kutt parce que xaj moom boo yëkkatee genn gi kutt kutt kutt xaju marché xaju mbedd kutt kese lañ te dañuy rage ku ñu màtt nga yàqu moo tax mooy kuñ fenal dañ lay fenal nga yàqu gis ngeen ay général dem na ci tubaab ya dafa am rage fen fen fen fen fen ba tubaab ya taw du tiit ñëwati la trois cent sénégalais yi dee lap ca géej ga adduna bi di ko wax mu génnaat defaat discours am defaat benn communiqué am fen donc gémmiñ gi dafa rage lu mu wax du baax gémmiñ gu rage la gémmiñ ko ku mu màtt nga yàqu ku màtt nga yàqu ba ñu rayee sénégalais yi ba mu génnee fen na gis nga rek matt nag ña dee ba baa bàyyi sax ñu dee ñu dee mattal na leen fanal na leen fa kàccal na leen ne leen ñee légitime défense la dañ leen a rey moom ku mu matt nga yàqu ay sa total sall ku ko gis dawal ku mu matt nga yàqu silib ba daa am teeñ tuur nga daa am kut fan rek lay def moom ay sa taal sall ak ñoo ant ñàkk jom ak yàlla nañ ci yàlla muccal yàlla bu ñu yàlla may njaboot gu mel ni ñoom yàlla nañ ci yàlla rawale yàlla buñ ko am bu ñu naree am doom bu mel ni Aïssata Tall Sall yàlla yàlla lañu yoom yàlla bu ñu am doom bu ñu naree am doom bu mel ni kii nga xam ne mooy Antoine ñàkk ko jom yàlla nañu yoom yàlla bu ñu am doom yàlla nañ dee te am doom yàlla man de bu ma yàlla naree may doom ci mel ni Aïssata wala bu ko jege rek yàlla bu ma ko may yàlla ku juddu faatu yàlla na ñoom ñëpp faatu yàlla bu ma yàlla naree may doom bu jege rek Antoine ñàkk jom yàlla faatu yàlla bu ma dundu yàlla na dee bu dee bu ko aw sedd guy canti canti ba faatu yàlla bu mu fa def benn fan yàlla bu mu am doom bu def benn fan bu mel ni Aïssata Tall Sall bu def benn fan ci kaw suuf yàlla bu mu am doom bu bu mel ni Antoine ñàkk jom buy def benn fan ci kaw suuf yàlla nañ ci yàlla gis ngeen ko fan rek la ñuy nekkee ñoom ay njiitu fenkat yooyu nag loolu il faut ñu góorgóorlu ci yàlla muccal ñu ci parce que vraiment depuis bu ñu juddoo ba léegi ay doomi xaraam rek lañuy la ñuy fal ay doomi xaraam ki doomi rek jot na nag ñu woon suñu borom subhanahu wa taala ne ñun bëgg nañ am lu baax lu baax loolu nag ñun ñëpp gisal nañ ko suñu bopp dofuñu a jàppuñu toxuñu naanuñu on est très lucide ñoo leen gën a yeewu gën leen a baax gën leen a baax yi juddu parce que ñoom it boo xoolee opération rëbb dëmm am ñëpp seen juddu baaxut seen juddu baaxut loolu moo tax ay xaju marché lañ ay xaju mbedd lañ voilà ñun nit nga xam ne ñun dañuy wax ne ñun ci juddu gi baax lañ bokk fu baax lañ jógee il faut ñu koy wone ni koy wone mooy lu choix choix wu doomu aadama mooy wane ni kii ku baax la wala ku bon la judd dund nañ fi nag depuis Senghor fekkewuñ ko Abdou juuf ñëw toroxal ñu tott Ablaye Wade ñëw toroxal ñu tott Macky Sall ñëw toroxal ñu tott ak ñoo ñi nga xam ni bugguma leen a tudd mooy ñoom euh, Karim Wade ak ñoom Idrissa Seck ak ñoom Khalifa Sall un enseignant histoire géographie multimilliardaire Idrissa Seck taxawaalukat multimilliard doomam sax milti multimilliardaire la waaw Abdoulaye Seck sax milti multimilliardaire la ñoom ñëpp seen doom yi ay multimilliardaire la te ñoom ñëpp seen doom yi ay chômeur lañ Macky Sall doomam multimilliardaire la te chômeur la moo taxaw fii wax ñu ko chômeur la donc encore une fois il faut que ñu ñu ñun ñii ñu góorgóorlu ba yàlla muccal ñu ci ñooñu musal ñu ci ñooñu yàlla ñu ci yàlla muccal te musal ñu ci maintenant lenn moom moo moo fi des moo tax gisal leen sa temps yi samay wax bëreetul sax man pour man le temps des actes n'est pas le temps des paroles te ñun dañoo war a acté lu ñu war a acte moom mooy Macky Sall moo nekk di wax boobu ba léegi mi ngi ratatate rek di ratatate rek mais troisième vague bi il faut ñu préparer ko parce que Macky Sall won na carrément ni xeex day am nit munul amul ku yàlla may baatin mu taxaw Sénégal ne xeex du am xeex bi dafay am ñëpp a ko gis mi ngi leer naññ xeex bi day am par la force doole mbaam xeex bi day am parce que Macky Sall mi ngi koy annoncé annoncé na ko annoncé ti ko waaye ñun ñu ngi koy xaar loolu moo tax amul benn prisonnier politique boo xam Macky Sall bàyyi na la moo tax vraiment kàccu APR yi ngeen muslu ci tamit ngeen di muslu ci lu leen ci kàccu APR bu ñu yeewoo rek jël benn détenu politique rek ne libéré nañ ko def nañ ko fi Diomaye Faye fekk gars yi xaaju Macky Sall parewul pour libérer ces détenus politiques parce que moom xam nañu ni troisième vague day am te dafa jàpp ni ñooñu ils sont influents ci xeex bi Macky Sall ci jàpp jamonoy jàpp la nekk mais newul ci jamonoy libere donc bu mu ñuy yeewu di xalaat sax ay kii dañuy libere comme niñ ko defee sànq rek sax ñu ñuy yeewoo ne kenn libéré nañ ko Sénégal loolu waru la ci jaaxal dañuy yeew rey nit te nit deewul donc noonu la ñuy yeewoo tamit libéré nit fenkat yi ñu ngi ci Macky Sall fen rek la ñuy def seen àdduna ñii dañoo fen ba marasme ñii fen ba jeex ñii fen ba wow ñii fen rek fen rek la ñuy def comme Adji Sarr jigéen ñi Adji Sarr lañ mel góor yi mel ni Antoine ñàkk jom wala jigéen yi mel ni Aïssata Tall Sall donc ñooñu yàlla nañ ci yàlla musal ak ñoom donc troisième vague bi day am lu leer la lu leer ñun ñëpp xam nañ ko situation politique bi guerre lay xeeñ Sénégal amul leneen guerre guerre bu saf sàpp lay xeeñ parce que Macky Sall dafa taxaw pour ne Sonko dem li nga xam ne dafa jógoon ci ca njëlbéen ba ci jafe affaire Adji Sarr depuis deux mille vingt et un Macky Sall musu cee wàcc musu cee wàcc mooy toroxal Ousmane Sonko ba mu ne tot ne ko doo dem ci élection yi choisir ñoom moom ay nitam ñu xeex seen biir te ñoom signé nañ ko loom yëpp comme quoi que ku ci falu tamit doo ko toppee dara moom ak njabootam loolu dañ ko signé ñoom ñoom ñëpp Idrissa Seck signé na ko Macky Sall Karim Wade signé na ko Macky ak waa PDS. kii Khalifa Sall si ñu nekkoog Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen ay fiisam moom ay fiisam lañ mooy cogga jeeg cagga jeeg cagga jàgg ji ñoo ñooñu duñ problème mooy doomam yi topp ci ginnaawam mooy sax duusi donc ñooñu ñëpp si ñu ne ñoom Macky Sall comme quoi que bu leen amnistier et cetera et bañ def ay élection ku ci génn tamit waroo laal njabootam waroo laal daraam da nga war a sax liggéey ak moom moom mun na la conseiller donc voilà loolu nag gis nga mbalit boobu noonu lépp la ñu war a buub tuur yi ñun bëgguñu dara foofu bëgguñu sa Seck bëgguñu xalifa sàll bëgguñu Karim Wade bëgguñu Ablaye Wade bëgguñu Macky Sall ki ñooñam ak gàngooram ak malfateur bëgguñu ñoo ñëpp système bi la ñuy brok xam ngeen brok damm système bi la ñuy damm daggote ko parce que boo ko dammee sax mu des fa de mun na kolewaat système bi la ñuy damm brok karaj damm ko nii ba mu jeex ba nga xam ni fii amul lenn nga xam mun nga fa dugal sa bopp ñu sànni lii gauche suul lii loolu système bi loolu lañ loolu moo ñu tax a jóg te boobu ba léegi Macky Sall loolu la ñu bëgg xañ xañ peuple bu taxaw ne ñoom système bi la ñuy changé Macky Sall ne non système bi kenn ko fi changé man maay décidé ci ku leen war a jiite ak ku leen warta jiite loolu moom <laughs> ay waxi kesam kesam la léegi opération d'élimination bi Macky Sall te boobu ba léegi mosu cee wàcc invité nañ ko le monde mu wax même chose avant boobu def na discours wax wax wax ne les décisions de la justice seront appliquées mu ne moom te loolu musu ko def mu dem ne les décisions de la justice seront appli seront appliquées seront la demaat le monde xamale fa comme ko ak moom ci boppam bàyyi na mais bàyyeegul ci bàyyi na ci saayir mais bàyyeegul ci baatin ndax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom du dem déposé candidature am wala bu waxtu déposé candidature bu demee dañ koy rejeté parce que def na ko fi mu neex ah. def na ko fi mu neex parce que Ousmane Sonko ci élection législative yi waroon na mun a dem déposé ji nekk président donc si seen ay golo-golo lu dugaloo gi jigéen dugaloo góor ñu def seen yëfu golo-golo ak ñoom Juda Diaz ak ñoom Khalifa sàll traître yi ñu doon ba jëlee fi Ousmane Sonko donc comme ñam na neex na donc moo tax mu génn nee na bu mu wax ci le monde nee na kenn mënu ko taxa tere fii élection am moom benn nit la bu yaakaar ni moom yàlla da ko may doole je sais pas doole yàlla nee na élection yi kenn mënu ko ko teree bañ a def <laughs> donc nag ñun nag ñun peuple dañ ko ne da ngay fen da ngay kàcc da ngay duul ñun ñun sañu bopp boo ñu bëggee tere ki ñu bëgg ñu tere la yow la nga bëgg a def te doo fi toog doo fi toog sa nit du fi toog koo yaakaar du fi toog koo xalaat du fi toog koo bëgg du fi toog moom day leer donc na ko ñëpp préparer troisième vague bi day am ñëwaat na encore le 15 bi nga xam ni dañu bëgg a def investiture bi encore une fois nee na loolu provocation la nee na ñun dañ ko yëpp wala lan xam nga Macky Sall moom daa foog ni moom moom ab buur la ab yàlla bu ndaw la nee na ñun xaw ma daf doom dafa bëgg laaj ba xam ñun dañ ko yëpp parce que tëj na ay nit rey ay nit mais teewul ba léegi sénégalais ñi ngi résister loolu moo tax ma ne ko on peut tuer ou arrêter mais on ne peut pas tuer ou arrêter une révolution malgré que tëj na 700 rey na 60 et quelques mais terewul sénégalais ba léegi ñu ngi taxaw di résister di ko won ni boo laalee Ousmane Sonko wala boo jéem a xañ Ousmane Sonko ci dem élection yi ñu taal dëkk bi mu jeex tàkk takk donc moo tax muy wax ne lii provocation la que ñu ngi koy provoqué investiture le 15 boobu dañ koy def partout Canada ñu ngi koy waajal France ñu ngi koy waajal partout ci diaspora bi dañ koy waajal et dañuy investir le le candidat Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 dara mënu ko tere parce que mënuñu ñëw jël ab sàcc Khalifa Sall nee na dem ci élection yi jël ab sàcc Karim wadd mu sàcc milliards ne na dem ci élection yi jël ab sàcc Idrissa Seck na dem ci élection yi jël koo xam ne sàccul un franc yorulul un franc Sénégal nga ne ko du dem loolu moom <laughs> bu amee rek moo xam ne ñun yàllaa ñu mbugal yàllaa ñu toroxal wala ñun ñoo newul ay gor waaye loolu moom mënul am Sénégal donc te Macky Sall loolu la jóg te loolu la jóg te def lu loolu yàgg na buñ koy wax boobu ba léegi nee nañ Macky Sall nee na wax na ko waxati ko ba léegi dindiwu ko nee na Ousmane Sonko du dem ci élection yi 44 jours jamono ji mi ngi téye Ousmane Sonko biir këram 44 jours 44 jours Ousmane Sonko biir këram la yem ak biir koñam ña fa demoon di ko seeti 17 personnes yi jël na leen dóor ci kaso bi 44 jours Ousmane Sonko mi ngi biir këram munul dem munul dikk munul dugg ci dëkk bi munul génn loolu nag musiba la parce que tëj kaso la rek xaw ma lan la may Sénégalais yëpp globalement xam ne ñi dañoo tëj Ousmane Sonko ci kaso. biir këram lañ ko tëj ak koñam barricade ko gauche droite tëj ko foofu munu fa génn 44 jours quarante 44 jours Ousmane ko génnul boppu koñam 44 jours muy lu yéeme muy lu doy waar mais sénégalais comme ni nga ko waxee incha allah mais incha allah bu troisième vague bi jotee dañ koy génn par force day libéré wu parce que il faut ñu ñëw def ko benn yoon ravagé ko raatale Sénégal ba mu mokk rumbax rumbax rumbax pour troisième vague bi mu jeex troisième vague bi nag buñ ko tàmbalee bés bu taxawee mooy dee dee nañ lu tax mooy ne nañ du ay affaire tëj kaso de mooy usman Sonko bu boobaa du dem ci élection yi parce que Macky Sall bu ko buggee def te koy def sans Ousmane Sonko parce que moom nee na Ousmane Sonko déjà n'est-ce pas Ousmane nee na Ousmane Sonko euh, dañ ko condamné te Ousmane Sonko condamné guñ ko ci dara nee na soit dañ ko condamné ci euh, Mame Mbaye Niang dañ ko condamné ci deux ans de prison ferme kon na Ousmane Sonko ceru sax ay investiture ngeen di sonal seen bopp Ousmane Sonko du dem ci élection yi loolu moom yaakaar naa ne Sénégal pare nañ ci sincèrement Ousmane Sonko bañ dem ci élection moom mooy élection du am élection nag munul am ci ay wax kese taal bureau de vote ya taal école ya taal dëkk ba taal lépp lépp tàkk rumbax rumbax rumbax toj lépp ki ñay dem ñay dem ñaan dañuy jéem a voté sax ñu toj dóor leen ba ñuy bëgg a dee toj seen bopp yi taal bureau de vote taal tout donc loolu kese moom mooy luy sauver te loolu fépp la nag fépp fu ñu voté muy bu Canada muy bu France muy bu Amérique yi moo ci yem élection yooyu dafa dul sax mën a am parce que dañ dul toog di seetaan sax ay bureau ay nit na naan dañuy jéem a voté naan dañuy jéem a dugal seen ne dañuy jéem a voté ak dañuy dem nangam a nangam non ñooñu ñëpp c'est des traîtres dans la république dañ leen war a taal dañ leen war a boyal dañ leen war a dóor bañ sedd guy c'est tout comme moom guerre civile ba lay wër mun nañ ko ko jox incha allah donc nañ Sénégal yëpp pare pare pour troisième vague bi troisième vague bi nag c'est non stop non stop amul arrêté buy arrêté di dee bu ñu arrêté torox ñun ñëpp parce que bu boobaa dañuy fal ki leen neex kooku ñëw continuité kese la ñun ñëpp torox nañ tot yàqu nañ donc soyez prêts et soyez au rendez-vous de l'histoire encore une fois troisième mooy dernière eh, va dernière vague bu jeex tàkk tàkk tàkk amul leneen nañ nañ ko préparer bu baax nag incha wala voilà sinon comme ni leen ko waxee man tiituma ragaluma mbal gi nga xam ne dafa jógee ci Macky Sall nii ñoo gars yi ñuy wax ñoo moom ma new ma ci débat boobu vraiment ay des fois ñu ñu waaye mais moo laa waxal ci euh, nu mu tëriti xaw ma lan Amadou Ba <laughs> il faut se respecter doomu aadama il faut jox sa bopp cër jox sa bopp cër mooy man man man ay Amadou Ba ma yàqal samay nalaw Amadou baa mënu ma yàqal samay nalaw seen bureau seen seen de vote yi sax mënuñu faa gañee man Amadou Ba yàqalu ma samay nalaw man ay Ablaye Daouda Diallo yàqulu ma samay nalaw ñooñu yàq ñoo vraiment di leen débat ay ay président assemblée ñooñu yàquñu man vraiment ñooñu yàquñu samay nalaw quoi xalaatuma leen sax ñooñu xalaatuma leen sax ñooñu sincèrement dama ne ñooñu sama amul parti politique amul parti politique boo xam ni daanu na buy amaat doole loolu amut loolu yàlla moo mayu ko benn doomu aadama Sénégal PS bu mu amee doole bu mu daanoo la dooleem jeex PDS bu mu amee doole ak doole gu mu yor yëpp bu mu daanoo la dooleem jeex APR Macky Sall daanu na bu mu daanoo dooleem jeex après day tas yàlla moo def loolu amul parti politique bu fi nekk ossature bi des fa ñu daanu ossature déedéet parce que ay jaam la ñuy du duñu ay gor duñuy mun a muñ duñu ñoo xam ne dañoo dañoo yaa dañoo sàcc sàcc ba mënuñu muñ xiif mënuñu muñ mar mënu mënatuñ mun rafle parce que dañoo sàcc luñ sàcc bari pouvoir lañ xam sàcc fenn sosalaate tëccaate rey donc loolu lañ xam bu ñu amul kenn kuy daanu Sénégal ku mu sa daanu Sénégal partem di exister wala partem am doole bu leen fàtte fii PDS ak amoon doole bu ñuy def investiture day fee tell gars yi sol ay bleu jaune mboq parti fee xaaj ba nga naan lii du mus a jeex jeex na lu dëgg tas PS noonu la meloon PS dañ doon feesal ay salle yu nganda nganda ngand des centaines de milliers de sénégalais dugal leen ci ay kaar yab leen jox leen hamburger jox leen sandwich jox leen mburu jox leen nambe jox leen ay sifflet jox leen tiset jox xartum ñuy pëppi cëppi cëppi ba ñu daanoo yàlla da koo tas PS dafa tas amatuñ benn doole ñoo raw ab mbër bu sida PDS ñoo raw ab mbër bu sida APR bii ñooy ñooy rawi cag cagamu sida cagamu sida dans quelques mois APR dootul xeeñeen ñoom ñëpp ay daw day lay xeeñ kenn du fa taxaw kenn même ay militant dañuy seey ñëpp seey ay parti même ñu fa nekk sax dañuy seey tasaaroo ku ne dem sa yoon ay day la ñuy xeeñ donc ñooñu kenn yàlla moo mus a def loolu donc jarul di tiit ci ay affaire Macky Sall dans six mois sept mois c'est fini boo ko doon sotti saafara bu gën a saf ci àdduna bu saf moom ki nitam boo ko doon sotti parfum